man kaana yuriidu yàllaari man kaana yuriidu yàllaari man kaana yuriidu lam lay def ma siisi nit a sax ca maamaat la si am siisa ndonga xabaan bay fa boole yalwaan ca moomaat la si am siisa ndonga xabaan dem xabaan bay fa boole yalwaan amul ca mbay ma lu du benn dërëm mu xam ne yàlla dal te an ma mu fab dërëm bu yóbbu gànnaar yóbbu ko Serigne Touba mu dolli ko waar lu yaram Seer Ndiaye biran jibi ca ngaay kor jëgg bàyyi la la Fall ami Cheikh Modou Fall Fall yónnee fa junni bés ba Serigne Assane Thiam moo ko yóbbu gànnaar ci ndigalal Cheikh Rayma Fall may jàmbaar Cheikh Bamba naan mur de kaa leen saara ndax junni bi dërëm bi lay saare borom dërëm bi yéen war na junni te man Serigne Touba waaye yéen a fol ko junni naan masalu li fi xoon yaraa xalax mooy fay di ful te noona mi atun xabatin lay xoon ci fepp xam ne guba ëpp loola fap dala xam ne mooy borom dasaawu jàngo yi daal fu man dasaawu keroog la seex keroog la seex seex Bamba yaa nawal seex seex bamba yónnee waalo kër ma seex bamba yónnee waalo seex Ibra Faal mu dikk ànd ak mbooloo seex Moodu Gay Kollu limal njaay roqi ahmadu loo masamba njaay mu waqi mook sunu maam Ceerno mook sunu maam sunu maam Ceerno Ibra Faat mook sunu maam Ceerno Ibra Faat ah. la bamba waawandoo yaar Ibrahima bun leen toppandoo danaa la wax lañ leen sëriñ ba sant ban demee gànnaar ku nekk i sant na ngeen ma dégluwaat tuub bi xol yi jëme ci Seex Bamba xalam ci xel ma wax leen xibaari gànnaar ca gàddi Seex Sidi Sibtil Muxtaar ak la fa xew caa fii soo daani bambam bi daan ak la xew ci buure andaar ak mbaaxaan te dara jëy xel wara adanaan mba dana bisimilah demin xaasimi rabbi bi jeexal Mustafa ibn Seex Bamba Seex Bamba Seex Bamba Sëriñ Tuuba yàlla tasaareel na ko mboolem buur di kon fa daar ma naan bëgg ren di seex ya ñaa foli nanu leen yéen wuure jébbalu ñaa alku bu dee dafay xële du nappalu laa nat leen xuluba wala daan salaamu minal bay daanu ma soo daanu lamin illi amilu wala xiyaalu xaalal wa daal ma silu man yaalu mbaa mbaa ka wax boobu ci réewum gànnaar bal ma ca ngay singi buur su xare ba daan fépp lay jaar looloo taxoon mooy daa teg rabbana noolana te moom di jàpp naan bana ruu yëpp ruu yëpp ruu yëpp man Seex Bamba jàpp naa leen fii saa yirin wa baatin moom naa leen am na ci yoo xam ne dinaa leen dàkku am na ci yoo xam ne danaa leen sëlbu am na ci ruu yoo xam ne danaa leen yëlbu am na ci ruu yoo xam ne danaa leen yóbbu ba fa ma jëm ma bool leen rabbu am na ci ñoo xam ne danaa leen folli rekk leen ba seen seet sax gàlli cooyo fan lanu folli noonu ba mag ba rekk garaatam ya mu mel ni pël ba def ba doola delwaan dem caar doom joor ñaan xaaraan kër yamoon mu jaay ko seede gaawaan ak naari góore yëpp la fab dulaa xaan ridwaanak dir këmbag lu góor doon alaaji seex anta daana ko bar suba ngoon cooye fan la noon bu dikk jébbulu ci seex bamba fekk seexi sébbulu ma leen fa tuut jabuura bamba jàpp daaru na suruura ba ñëpp ñëw ma di waaru ma jëkk leen mbaaxaar mbaaxaar moomoon yoonu bamba ko jox seex bara faalam yoonu mbaaxaan ndar la fekk Serigne Touba joola xaacu ko raamal koy maro du rëccu Cheikh Bamba naan ko mbaaxaan keroog fu nekk Jurbel waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa la waxoon naa mbaaxaan la waxoon naa la la mbaaxaan waxoon naa la waxoon waxoon naa ram baaxaan bàyyi si loon maroo man Serigne Touba ku ma meroon léegi daa nan maroo mu ne ko duma maroo yow mukk ci dun yaa Cheikh Bamba du mooyu ko mooñ ngir fan ya baaxaan nan ko Serigne bi xanaa danga xamul ni firaw na la tax mu lab ca baaru xal soo am dafa tuubalul masaakilim teew mbàkki tuubal naa la jéggulu naa la raamal naa la rëccu naa